prison. mu mel ne que ki nii gars yi dañ naan Lirou Diane mooy monument Guédiawaye mais Lirou Diane nangul nañ ko ko bu dee monument Guédiawaye kii mooy xolu Guédiawaye kii mooy grand mbaw kii moo ànd ak Balla Gaye ci 40 mille ba 200 millions du ma du ma présenté. parce di borom ñu bàyyi la nga nuyoo. day sant Kasuma production maa ngi lay ziar ba. waa sant xanaa di sawar di contentement ci micro ma dëpp pour ma waxtaan ak yow ndax yu woo nga naat ci nguuxum soow parce que li tax mooy fier bi ma jëkk am mooy suma ndijaay Gaston Mbengue ak yow mi nga xam suma jarbaat nga di suma doom di suma lépp ma gis mu téye la téye boo xamante ni dañuy wax ni genub golo gudd na waaye loolu ca laat borom yëg ko loolu dog la rek ma koy gërëm di ko sant di ko ñaanal suñu borom barki Seydi Aboubacar Sy Malick lii nga xamante ni si tey moom la def ci réew mii suñ ko tegoon ci taabal ñëpp dar seen bopp sama ndeyaay Gaston yàlla na yàlla dolli sa jàmm waaw. ñu ko mel ne que ñu jëm ci. le premier janvier. ku ne xam na ni Balla Gaye bu ma saan ñëw dañ ko gis ak yeneen fugg yu bees yeneen feem yu bees mbaw en tant que encadreur nan nga gisee sa état de forme mbër ak lan ngeen di préparer le premier janvier. mais xel dal xel mu dal parce que man ki ma yor du ragal ki ma yor ndaanaan la ki yor borom fit la waaye ki ma yor borom jom la ki ma yor xam na moom li koy xaar. xam na lan la koy waa géej waaye di nekk ci moom mais xam na li nga xamante ni si tey moom lay def tey war koo def waroon jàkkaarloog baayam sunu boroom dogal baayam jiitu yal na yàlla yokk ay leeram dama ko gis ci benn image mu jooy dëgg la boroom jom la su amee loo xamante ni si dafa triste ci moom ak xol bu rafet ba fokk rangoo ñam tuur seen normal baayam Balla Gaye Ndour jiitu kan moo fi des ñun ñoo fi des. yow yaa fi des. ñun ñu fi des ku ci mel ni Pape Mama Fall. Andaw Ndiaye. Père Mbow. Abdou Aziz Ndiaye. Baye Ndiaye. ak l'ensemble Guédiawaye. Adama Ngom Tambour ma sërëm tey bu ak liiru jaan <laughs> ah, barki Seydina Mohamed noo xamal tax man maa koy def monument Guédiawaye mooy kenn du laal Guédiawaye ñun li ñu yàlla def muy kilifteef gi ñu doon ci Guédiawaye doon nañ ko ba pare mais man damaa gis ni liiru kenn la ci géejawaay maanaam seen i tànk rek la jaar nag seen i tànk rek la jaar wax ci Père Mbow bu bu liiru jaan toogee waxal loo xam. booy wax ci Père Mbow bu liiru wàccee noppi. looloo waral nag ma jox ko man monument bi. mais man dama dépassé borne boobu. ay xol bi ndax man bu yàggee waaye ñoom dañ koy wax sax. boo jàppee ni damaa vocaliser sa côté ndax nga sa bopp. Ah. damay tourné dem ci kii sawaay taxaw moom. dem ci sawaay taxaw moom waaye ñu ngi taxaw ak. sama euh, bu international bi. man fi ma taxawee la quoi ndeysaan ñëw wuy seen mbër Balla Gaye numéro a rafet xanaa nan a neex bés mënu koo gën a rëy mais bu nu yàq sunu bopp bu nu naxantee nañuy wax dëgg ku leen ak ku law ko ana mu li tax ñu koy wax mooy non violence nit ñi nañu nite gis nga valeur yi jeex ci àdduna bi toj na àdduna valeur bu jeexee dootoo am kees valeur bu jeexee dootoo am jom valeur bu jeexee dootoo jom bu jom ci yar ci teggin amaan dañ koy jàll message rek mais kenn ku nekk na ni fan sa kon def jël ay milliards def ko ci lamb ji waruñu koo xajamal neex am na loo xamante ni suñ ko defee baadoola la ci toog loolu supporté Balla Gaye mu ngi ñaan le teral leen ba teral géer ña li tax mooy fii teraanga Sénégal bàyyi ma doon maa ngi koy nuyu de passage di la féliciter di yaa ngi déggal bëre bu rëy barki Dembo Ndiaye mu sagal Sénégal. ah mooy roi des arènes Gambie ki Seydina na des arènes Gambie sunu toog fa mu toog di ko conseillé Père Mbow toog fa mu toog di ko conseillé Grand Diaw toog fa mu toog di ko conseillé bi lenn kese la ni ko ñu ànd jàppoo du caaruy géej nation Sénégal la kon nañ ko géré mu daw indi manière boo xamante ni ak jom ak fulla ak fayda ak fit ci manière boo xam xam ni Gambie bëgg nañ dëgg la dëgk la ngay do yëpp waaye Sénégal international nag mooy moo jiitu mooy membre bi nga xamante mu def moom ci wàllu sport bërek moom daan ko jëli boo xam dafa xaw a supérieur li nga xamante ni si tey moom lañ leen signé loolu mooy lay wan ni la man bu ma la mënee dama la koy loolu mooy li nga xamante ni moom la Balla Gaye Baye Mandione na ko président recevoir waaye na ko ministre des sports recevoir nañu xam ni du caaroy la doon représenté tey nag li tax nga dëpp ma sa micro bi ma sawar di wax. la ngeen wax ci Lissa TV ci télé bu bees bu nekk fii ci Géejawaay yow yaa tax may def loolu ndax nii nga xamante ni moom la la garçon def barki Serigne Babacar mel ni Balla Gaye doo bu wootee xam naa ñu jël kan la ndax na ngay doo muccee ay tey ku dëpp micro dana wax amaan di leen ñaanal suñu borom kàttanal leen yokku leen ak xéewal bi ko ñaanal doomam bi nu mu tuddati. amaana yéen mu ngi fi mbeg liggéey bi suma xarit am na solo suma jarbaat te tegu na ci li nga xamante ni ci ñun ñu lañ ko bëggee mu doxee ko ci internet yëpp yëpp dafa effort boo xamante ni sii adduna bépp moom la wax ba léegi ci wàllu teranga kon daal maa ngi ñaanal am bi balaa déwén yàlla na ko yàlla def international Balla Gaye 2 moo waral lii yëpp nag ku sawar la ku gëm boppam ku xam ne muy def la waaye képp sama présentateur. ok jërëjëf gis fii la. international ah, bu bu ma yoxoo bëgg a dem noonu man xam naa la en tant que en tant que. Ah, waaw mais mais non plateau. nga ma ko ba tey mais tey dama lay tànk grand ku nekk xam na ne encadreur euh, mais nag teer nga parce que ci làmb nga euh, dama bëgg nga defal benn analyse bu ndaw. bul faa nga wax ma qualité yi Bombardier wax ma qualité Balla donte la nag yaa yar Balla Gaye nga wax ma combat boobu ñoom ñaar kenn ku ñu nekk say fort xam nga kon muy kan mooy parce que ah ñun dañoo am sas quoi parce que dañ naan Balla Gaye jom moom fit euh, gëm boppam euh, xam ki mu doon xam li mu doon boo xamante ne pour man kooku euh, mooy barki Seydina Mohamed keroog ba muy daan ki nga xamante ne mooy Tyson ànd ak Ousmane Diop Maxime Bargane buur géwal FM Sénégal mii nekk tey DTV mbaa xam nga ni keroog blouson boobee Bombardier sol buur géwal moom moo ko defar li ma barki Seydina Mohamed ba pare ñëw ci bokk ci lang gi di bàkku doon mbër bu jour wa buñ ko yàlla mayee jàmm muy buur géwal mii nga xamante ni moom la Gaston Mbengue formé boole ko ci nit ñi ba yàlla dogal ñëpp di ko joxoñ ko ñi joxoñ ñëpp loolu ex national bu Balla Gaye maa la ko may te fii laa koy waxee ci télévision bu mag bii. loolu mosuma ko xam sama mag kéwal mi nga xamante ni moom la sama ndeyaay Gaston Mbengue. tey fii Ndakaaru defar ko ba kenn ku ne bëgg kan mooy buur keroog bi Tyson di bëre ak bombar Bombardier. blouson ba nu soloon barki Serigne Babacar Sy buur géwal moo ko defar lu ñëw jox gaay ñu sol mu sol nekk mbër nekk ci biir lang gi di bàkku t-shirt bi nga xamante ne moom lañu tiire woon ci diggante Tyson ak Bombardier maa dëkk dugal mbuur waaye booba Tyson nag bari fa ay fans lool après ci ginnaaw bi la Bombardier seetaat boppam xam ni bay ci sa wewu tànk guddi guddi mbuur dëgg la wax la waaye da ko war a appliquer pour ñu bëgg la ci la mujjur defaroo nag waa mbuur xam ni mbër maa ngi nii Bombardier xam ni waa mbuur la am muy jàmbaar joo xamante ni barki Serigne Babacar Sy Malick ku ci jàpp ni war ngaa mën a saax-saaxee sa moroom nax nga sa bopp parce que affaire bi dafa nekk benn genre stratégie boo xamante ni ci bopp la fit moom da nga ko am da nga am doole danga nga mën a bëre te da nga ñeme xeex lu ne mën naa am waaye cay Balla Gaye de mais lamb ji ci xeex lay jeexe wala ci bëre lay jeexe non mën naa doon jeexe mën naa commencé ci xeex mais ci bëre lay jeexe naa commencé xeex mais ci bëre lay jeexe wula mu doon coup perdu boo xamante ni kenn du foog fan lay jóge ñu jëw kenn tiire ko ci ñoom mu touché sa morom gàng moom du am mais sëpp loxo mën naa am. ah c'est le professeur qui parle c'est le doyen qui par nee na par surprise mën nañoo juwaloo dóorante ay ku nee na chute nee na dóor mu kaaw mënu ci am mais nag rëpp loxo mën naam am loolu du sama waxi Père Mbaw la mu mel ne que. daw sànni laaw ni ko tëf nga yaakaar day dem teer. mu daw dóor loxo ba ci suuf siggi siggi ma nag dama xamul lu cay am bëri mën na caa am agale daan lu ne mën na caa am yuuxu nag mën naa jóge fu ko foogewul xamoo nag fu muy doon xaw ma fu mu doon yàlla rek xam wala wax la Balla Gaye 2 Balla fi ma la ci waxe mooy fitam ak jomam ak faydaam ak mën a bëreem dara jëy Serigne Babacar si mën na koo may lu ne du ma la laaj ci Balla Gaye 2 uude bi lu mu wax ci béyu feebaru ñun derbee tax kontaan naa ci yow jërëjëf. production présente.